dal leen ak jàmm mbokku internet yi rangu jigéen ju doy waar ji nga xamante ne kenn dootu ko présenté ci réew mi moom la juróomi góor fekk ca appartement am di koy agressé teg ca filmé mbir ma rangu nag waroon naa xam ne dëgg-dëgg bisam dina mës a ñëw du da ngay ping-pinglu jaay doole ak def yëfi maa tey waaye mel na ni soow ma mu doon yëngal moo mujjee këpp ca kawam woyu bàndeey baayam juróomi góor a ko fekk ca këram yéen ko lu diis fi mu toll nii nag moom rangu mu ngi dund lu métti nekk ci ay jafe-jafe samba booye ko fekk ca biir l'appartement am dañ ko agressé teg ca daal di mbir ma li ko waral nag bu ñu sukkandikoo ci ay kaddam mooy mbirum infidélité waaw moom rangu ci jëmmi boppam moo doon nettali mbir mi waaye nag ku wax feeñ jëkkëru xaritam moo ko yónnee juróomi sàmba boo yee ca biir këram ngir yar ko ñu àndandoo déglu ay kaddu ba rangu mi nettali mbir mi di ci def ay jéebaane ki leeral rangu mën nañoo xam lu xew ak lu la dal yow daal gis nga affaire bi dafa simple ba bëgg a dee sama benn copine bu ma doon àndal la